lii tax nag euh, suñu taxawaay surtout mooy màggal gi day bari ay gox yoo xam ne ay nit ñu ab lim nit ñu bari dañ fay daje. lu ni Aliya lu mel ni Ndindi yu bari du rekk ci boori jumaa ji maanaam dama ne nit ñi duñuy mën a sax tasaaroo yu ay gox yu bari yoo xam ne non seulement nit ñi dañuy daje biir Touba waaye ci yeneen gox yi ñu bari dañ fay ñëw dañ fay nekk. te fu nekk ñun tam ñu war faa ne li ma mën a wax daal mooy dañ jëm ci màggal gi xel mu dal ak xol bu dal à partir de maintenant nag commencé woon nañu si liggéey ga du tey lañ ci tàmbali ba CLD bi taxee ba léegi dégg ngeen sous préfet ak préfet ànd nañ ci ci liggéey balay boo bés bii xanaa daf fekk ne à partir d'aujourd'hui tey moom ah dootuñu dañuy mën a gën a baral tànk yi lépp lu ñuy def tam ñu gën a taxaw ba nga xam ne bés bu ci àggee le 28 ndax màggal gi le 28 lañ ko lañ ko jàpp incha allah dina fekk lépp yam lépp lu ñu waroon def daal ñun ñii ñu xam ne dëgg yàlla taxaw nañu def nañ ko pour mu am taar beeg la fa war a am kaaraange geeg euh, yombal beeg dem beeg dikk beeg taxawaay bi ji war a am ñun fekk ñun am nañ taxawaay boobu loolu daal laa bëggoon a biral kon Kazu Rajab gi bu ñëwee sëriñ bi di soññee ñu jàng alxuraan def ko addi yi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom la alxuraan wax ci wàccoon ci moom waaye def ko cheikhuna alxadim mi nga xam ne mooy liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te léppam doon alxuraan waaye def ko nag cheikh mahamadul fadil mi nga xam ne moom itam léppam alxuraan la woon ndax gis nañ ni mu fonke woon jàng alxuraan bindal sëriñ bi kaamil yi du jeex waaye daan teral borom daara yi daan leen daan leen daan leen dimbali ba ren bokk na ci waajtaay wi sëtam bu ñu wax abul baraka ñëpp xam ko moom itam ci alxuraan mu taxawal ci musaabaxa maanaam maanaam concours boo xam ne dañ ciy jàng alxuraanul karim ku ca raw ñu wutal ko ay neexal te loolu daf ko bëgg a ci maamam ja am na kilifa gu baax ko nu nettali ne ba mu nekkee ci daara ja sëñ Fallou dafa mas a ñëw nee bi mu ñëwee dong yi nuyu ko mag ñu nuyoo ñëpp waaye dong yi ku ne mu laaj la fu saw saar bi ñu waxee fu seeni saar toll ba noppi am ci ku ko woon alliwaam mbind mi rafet lool ñu dem ab diir ñu gisaat oto bu ñëw ci dëkk bi indi ñaari walis walis bu fees dell ki yére Cheikh Amadou Fadil ne ko moo ko jox sëriñ daara bi jàngale daara waaye wenn wali nag moo ko be moo ko jox taalibe bii di seen tudd sëriñ naa ngir soññee ko ko ci àll ju uh, kawe ji ak mbind mu rafet meem ko wonoon bu ko daan nettali def naa at mooma ca la ñëpp tàmbalee di mokkal di bind mbind mu rafet xoola boobu jàngale loolu kon bu ak njabootam bëggee taxawal ab ab ab ab prix boo xam ne dañ koy tuddee jaiz Cheikh Mahamadul Fadil li tahfiz al Qur'anil Karim ba di loolu kon dafa ñëw bokk ci màggal gi di liggéey bu am solo ñu di ci fàttaliku nag sëriñ Maam Moor nga xam ne moom sunu kilifa la doonoon ko daan taxaw taxawaay bu rafet ci kër sëriñ Fàllu ak ci diine ji yàlla dogal moo daan toppatoo njàngum alxuraan moom yi ndax fi mu ne xam nañ ne daara yëpp tàmbali nañ di jàng ay kaamil yoo xam ne lim bi kenn mënta xam nu mu toll daan ko yëgal lim bi kon moom itam ñu dugg fàttali ko di ko ci ñaanal waaye bi mu nu laqoo itam sëriñ bi dénk liggéey boobu Cheikh Mahamadul Xabbaan moom itam liggéey boobu ba tey mi ngi koy wéyal li mu koy wéeli ci daari alxuraan yi kon képp koo xam ne jàng nga ci euh, ci màggal gi alxuraan nu lim bi mën a toll ñu su ñu fexe ba Cheikh Mouhamadul Xabbaan yëg ko kon daal ñu ngi sant di gërëm di bañ a guddal di ñaan sunu borom may nu nu teewe ko ci jàmm ak salaam te sëriñ bi nee na bu ñu ñëw nañ fas liñ bëgg te xam ne sunu borom borom yërmande la te nangul na Cheikhuna al Xadim nangul na Cheikh Mouhamadul Fadil kon fële ko yitte ju fa nit indi ak lu mu mën a doon nañ xam ne lu néew ci borom bi subhaanahu wa taala la ci mu faj ko kon lu fa waay indi yàlla na ko yàlla faj kon buy ñëw lépp lu ñu bëgg nañ ko faj ñaan ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te fekk ko at yu bari lool te yàlla fayal nu Cheikh Mouhamadoul Fadil